oto nga wàcc rek ne ma xoolal Ousseyn naan ko nuyu kii sa xarit bi la. sa xulóobaale ah, ne ko kii sama xulóobaale mi ngi may door a gis tey mais li ma yàq yëpp mi ngi may door a gis mais mu mu mu def ak man nu taalibe nuyoo ak man normal ndax man xam nga ku ma gis ci antenne bi ak ku ma gis hors antenne du du nga may kiiwee. bijou abordé kilifa la nag. bijou. dama ne la booy bandi laa de. Sénégal booy asalem au ji. balaa man soo ma posé question ci lu mën a dox. laaj ma ndax xamoo la xamoo ko parce que mënoo maa doo gis tey. doogu maa def interview tey. ah yow nag ma yow mi yow mi yow jugé nga ma tax gis mosoo maa gis. ma ci lenn. mais pétrole yow nag jeexamul dara nag loolu nag moom. waaye ma def ni Sénégalais yëpp rek. loo def pétrole bi. waaw yëpp ndax fi njëkk commencé génne ne pétrole bi nangam. Ousmane fi njëkk commencé génne ne. dëkk bi am na pétrole jaay nañ ko. Uh-huh. dëkk bi am na source am source ko am na gaz jaay ko ba léegi ki nga xam ne ne mooy président de la république ñu dénk ko réew mi. moom mu gën ci am privilège waxut ci. léegi nag ñun Sénégal yëpp ñu ngi wax. waxut ci boo wax ñeme yàlla rek. Sénégal yi kenn xamu ci dara ci affaire pétrole bi ak gaz bi ko ndax <laughs> médecine loolu moom boo mën a dem plateau télé boo mën a dem dalal nañ fa koo xam ne boo ko laajee defut médecine mhm. amul fu mu ko jàngee mhm. te mu ngi wax xalaatam wax sa xalaat non non mais loolu mooy erreur yi nga xam ne moom la ñuy def. waaw loolu nag kon kon naa la ko laaj ma ne la erreur boobu man du ko def. man lu may def lu may def ah, xam bi gën a rëy bu ñu xoolee Moustapha Darame kat a ngi koy seetaan ci internet bi tey xam nga tey euh, euh, euh, dama la bëgg a pour ñu bañ a réeroo tey jii Moustapha Darame mi ngi ci internet bi ñu ngi koy seetaan am na influence nit ñaa ngi koy seetaan réseaux sociaux yi nii yëpp jar na tey jii am nañ ci droit ñun émission confrontation ñu teg Moustapha Darame laaj ko ak waxtaan ak moom parce que émission bi du émission bu gàtt du émission bu ndaw émission bu mag la mënuñ cee dalal koo xam ne kenn xamu ko. Mhm. parce que conception bi mënuñoo dalal koo xam ne tojul fenn comme ni ma taamu di ñu parfois ñu tooñee ko ak benn invité yow foo wala dara mais tey bu ñuy invité bu ñu zappee rek dañu bëgg jàkkaarloo ñu ne ah tey de Bijou la ak Moustapha Dramé wala Bijou la ak diw waaye confrontation mënumaa jël sëriñ ba nekk fon fongale mi ak xam ne kenn xamu ko ma teg ko ci plateau bi. day dañuy dal nag parfois nga gestu service commercial waa Aïssatou woo la ne la da ngay dalal diw nga dalal diw que neex la que mu xari la ay léeg-léeg ñun bu ñu toppee actualité confrontation du ñëppay ñëw de du ñëppay ñëw de yàlla dogal na nag dañ lay nangul notoriété bi la yàlla may parce que nit ñaa ngi lay si tànta du confrontation lañ la xamee waaye xam naa ne di ci amee beneen position bu bokk la bi nga am ndax xam nañ la ba pare ndax leer na. ndax am nga question bay yow. du jeex moo tax nga toog fi tey bismillah waaye dama la doon leeralal foofu ndax leer na. leer na bismillah jërëjëf ñu ñëw ci ci ci ba tey dañuy ñëwaat ci actualité ah. Euh, ak yenn sorties yi nga xam ne sëñ Moustapha Dramé jot na ko def ci lu jëm ci euh, actualité sànq laal nga ko mu jëm ci wàllu politique chaque fois dañuy gis euh, lu jëm ci politique wala làmb maanaam wàllu seet gi da ngeen di jékki ne gis nañ ni kii mën na daan kii kii dina gañe fii kii gañe fii te parfois dama mës a dégg ci benn borom xam-xam ñu ne li si xaar ci benn aajo moo tax ñu koy def. Euh, ñenn ña da nga gis ne tëdd naa dem gis naa ne kii dina def lii kii dina def lii kii dina def lii est-ce que boo ko bokkul ci dëgër fit. du dëgër fit. lan la coupe du monde bi war a am deux mille hmm. ngi war a am. Qatar Qatar euh, déedéet Qatar. déedéet du ah Qatar Qatar dëkk bi leen ak États-Unis non non États-Unis lay bi même même bi. non dama ma lay gàggante. waaw non gàggu dëkk coupe du monde bi war a am deux mille vingt six. Hmm. tirage nañu ko ba xam nañ dëkk bi ko war a organiser hmm. xam ne ñaata équipe ñoo war a dem. xam nañ équipe bu ne heure bu muy heure bu mu war a fubal. Mhm. te loolu fii ak la presque. Mhm. dégg nga. waaw programme la rek. mais ma programme la. Mhm. noonu la amee nag ci yow loo réeree yow loo mënul gëm ne li yàlla mën na ko may nit. muy programme nit. nit toog sakku nu ndimbal ci yàlla. ne ko de man de nangu la bëgg xam. yàlla ci coobareem du moom ne mu wàcc ne ko ah li nga bëgg xam de mooy bëgg taf la. nangam tudd nangam sant déedéet. Mm. waaye mën na xam saaru lum la wenkennal xaw laa dimbali tuuti as lëf ci loolu bëgg xam. Mm. par exemple. Mm. ñaat nit ñoo fi gént ñoo xam ne duñu sëriñ. seetluñu sax te jamono ba ñuy génn sax mun naa am ñu ngi sobe. gént nit génn àdduna nga xëy ñett fan muy dëgg. pourtant géntoo yàlla dimbali na la. mu mel ni dee dañuy wax ne. Mm-hmm. dee amul kenn kuy bett. képp koo mën a gis ci àdduna mu war a génn àdduna. yàlla dana ko envoyé SMS mu nangu ko nag nangu ne lii man may may sant sama yaram nii di yàlla wala yow sa mbokk nga nga am loo yëg fekk dëggoo ne diw gi dee na doxale ah naka jëkk man daal xam ne ma nangam boo doon nit koo xam ne nag am na as lépp lu muy dimbali ko ci yàlla boobu jamono mën naa xam ne man de dama ragal ni lii war a ñëw suma njaboot moo mel ni nangam moo tax may sant lii nga commencé mhm. na ah diw mu ñëw ko ah, génneel sarax li ma gént nangam par exemple tey ah sarax day fànq. mais mais mais ba tàmbali tey. Mm-hmm. xam nga dañu sarax day fànq. Mm-hmm. est xam nga ne ñu fi gént ñëpp nangoon nañ ne euh, keroog boo géntee jël yàpp saam ko yàpp. Mm-hmm. saam ko. dëj la ba mu sax du du yàgg nga gis dëj. ndax ndax xar la bu ñuy partagé kenn ku ne am ci. dëj day métti kenn ku ne sant ci sentir. noonu amee nag ci nit yàlla yi. ci ay nit ñu taxaw bëgg def li si xar sax ku ne ko ni ma ci yàlla. na yàlla man li laa bëgg xam. yàlla wan ko ne ko nangam xam na ñoo xam sax duñ ci yegg xanaa xamoon ne ne boo duggee fii ci àll bi Saalum fii am na paa yoo xam ne te ñu réeruñ wala ñu ngi lekk cere mbuum te walla angim buñ la géntalee bis taf yow dara du jaas wala balaa dara dañ ñëw ñu yëg lu mu ngi am mm-hmm. ñi nga gis nag ñuy mbuboo xaar wala seet ñoom bi nag loolu la ñu mm-hmm. ba noppi ñëw nag di ko mbuboo waaye nag ñooñu kan ak kan la mm-hmm. yow da bokk ci ñooñu ci ñan. ñu ngi ci nii léegi. man naa ci ñi nga bokk mooy. Mm-hmm. képp ku ma wane Moustapha Dramé li saxaaral ma. Mm-hmm. lii ngeen di jàll moom sallallahu alayhi wasallam jàngal laay def. Mm-hmm. jël sa tur sa turu ndey sa turu baay. xaddat tamit nag ñetti yëf yoo xam ne nit ñi dañ koy bàyyi ci seet. dëkk bi nga dëkk dafa am solo. bis bi nga ma sant li saxaar dafa am solo. ba ci heure bi nga ma oo téléphone di ma li saxaar dafa am solo. biddew bi ci la bokk. biddu man bokk ci mbir. ah xel mënu jom pour nga jàng ko mooy xam bi vidéo hmm. mën ko maîtriser da nga fay trois cent mille francs nit pour mën a dimbali ko mu jàngale xel mënu joom du ñëpp ko na ci maanaam ci jamono hmm. te xel mënu joom boo ko gëstu ba ci digg ba mënul sax tax nga xam dëgg-dëgg mbiru nit ki hmm. nit ki li nga mën a xam ci moom bokk na ci noo tudd diw ma jëm a gëstu nag ci mbiru yàlla subhanahu wa taala léeg-léeg nga ko nit xëy gis ko mu sàngoo malaan gu ñuul mais yow doo xam lan la. mais xam nga xam nga xam nga sànq da nga da dañuy ñëwaat ci beneen point parce que temps bi daf ñuy daf ñuy daf ñuy xoj. Euh, mu wax tamit euh, ci ci alalu nit ki nga xamante ne am na alal ci showbiz bi comme yow waa da nga sonal waa showbiz bi sànq da nga nañu dugg ci point wu showbiz hmm. nit ki nga xam ne am na alal ci showbiz bi di ci def lu baax na li muy def dagan na wala daganul. man daal dafa am ku ñu wax Thione hmm. yal na ko yàlla may fan. yal na ko yàlla may yal na ko yàlla jégal bàkkaar la bëgg wax. Hmm. woyof si ci kaw maa dégg mu ne soo bis baaxul. Hmm. mu ne ma ñaanuma yàlla mukk dee bàyyi fi boîte. waaw moo ko wax. te mu ne ñu bëri di fréquenté ci showbiz. ñii hmm. la ñu mel. Hmm. dañuy yor ay façon jukko. ñëw wax li dem wax la le léegi nag la réalité. lii dëgg kan moo ko mën a wax yàlla suma sama tala moo ko xam d' accord mais ñi ñi ñi am li vision ñi am xaalis si sow bi te di ci def lu baax salaamaaleykum waaleykum salaam waaw suñu invité bi dafa tardé woon salaamaaleykum waaleykum salaam am ma dama si nga de waaw doy na waar kay ñu ñu am xaalis ci sow sama da nga invité ça va am ñi am xaalis bi di ci def di ci def lu baax balaa loolu waxoo moon lii Mm-hmm. waxoo moo ne ma. Mm-hmm. dégg ma invité ma ak suma yaay ju baax ji nu mu tudd sëñ sa Saaliw. Mm-hmm. waxoo moo loolu soxna Aïda soxna Aïda ton na ko baax daf ñu dab daf ñu dab dabuñu. ankay daf ñu dab la programme la. waaw nañu nañu non dama ciy ñëw man xam nga man dama am waaw ah moom lii. kii kilifa la man kilifa la. boo koy dalal oo ko nga personne nga dalal man soo may dalal à poste nga. mais nag invitation confrontation ñu ne seet tamit. Euh, côté boobu tamit xaar damay bañ xulawaatee parce que dañu nekk ci point bu am solo. si waxtaan bu waxtaan bi dafa ko xuloo bi jeex na. ñëwoon ñu continuer euh, dañu nekk ci point bu am sens. après ñu képp ku ci mëntu nekk ak koo mën a dox. li njëkk aram mooy amin gi. yàlla ko tere. par exemple yow pour nga am alal. il faut nga musique. waaw kii am alal te te muy musique te am alal. Euh, euh, euh, e- exemple di ci di ci yóbbu ci par exemple moom mii Wally Seck da ko yóbbu Màkka di ci yóbbu ci Màkka joxe ci xar tabaski joxe ci nangam def ci nangam lan la ci lan nga ciy wax yow ban jàngat nga ci am. dama ne la boroom xam-xam ñaar lañ ci wax. dañuy wax ne am na ñu ne. boo amee lu xaraam. boo jëlee alal baan xalal ju xaraam. dugal ko fu dagan kan ko defal kooku am na tuyaaba. waaye yow en personne mi nga xam ne yow yaa fàggu alal ji. mënu ci am tuyaaba. ah bon bakka parce que alal ji boo xasee tegu sa loxo rek. mu ngi mel ni yaa nekk ci métier boobu yëpp. bu doon loolu jaamu yàlla gis nga wax benn affaire ci uh-huh. gis nga dafa am alal joo xam ne mënut sax tabax jumaa. mënut sax tabax uh-huh. jàkk am na alal joo xam ne mënut sax dem màkk. mais alal jooju naka lañ koy alal googu moom lu muy jariñ moom bépp alal boo xam ne ci lu xaraam nga ko am alal waaw bépp alal boo xam ne ci lu xaraam nga ko xam. alal ji mënut hmm? uh-huh. dem màkk. mais kon alal gi ñëw ci yow yéen a ngi koy seetlu. ah bon alal jàmm bii ñëw ci yéen dañ la wax ne ji suñu dafa araam non ah. laajte <laughs> Ah, bu fekkee ah, yéen kat ku ne mën naa jóg ñëw ci la ñaanal a ngi wax lu ngeen xamul de non a tax ñuy laaj dama la hmm. nit ku nekk laa wax la ngay amin amin nga bu la ngay non non loolu waxeewu ko foofu de dama ne nit ki nga xam ne mi ngi am alalam hmm. di ñëw est-ce que moom peut-être dama jàpp ne loolu la war a wax hmm. euh, euh, euh, est-ce que nit kooku alalam jooju xam ngeen fi muy jóge fi muy jóge est-ce que alal bu nekk ngeen recevoir xam ngeen fi muy jóge xam nga Moustapha Dramé mu tudd ñaan nga dem sàcc fukki junne ñoo jox ko moom yoon nekku ci yoom sàcc parce que xamut te yaakaar naa ne ba doon koy lii ma la jox na lu mu sàcc la du ko jël ndax waaw damay dul damay dul damay dul ndax tey jii boo sàccoon xaalis ñoo jëm Moustapha Dramé ne ko ñaam yàlla bu ko jëlee mm-hmm. bis bu ñu borom alal bi porté plainte mm-hmm. ci yoon laa wax yoon fii rek mm-hmm. yow sëriñ bi boppam da ngay daanu wàlla ndax complicité lay jàppee complicité noonu la amee ci yàlla nag heure boo jëlee alal mais bu fekkee nga xam ko ci kaw nga xam ko boo xamee waaw boo xamul te xam xamoon ne bu dee fii sax ci yoon. même boo ko xamul balaa leer da nga dem brigade wala ci kaw procureur léegi ne la rek. mais ci kaw nga xam ko xam nga alal jooju tamit nit ku ñëw alal fay la ko. xam nga bu fekkee yàlla ne bu bu fekkee yàlla ne musique dafa xaraam. Hmm. yow waroo cee am waru kon yow musique wàcc na la waroo ko def. Hmm. am ci alal quoi warul la. Hmm. ba ci am la yóbbu ni màkk. dafa xaraam xaraam na waroo ko def ba ci am dara di yóbbu ni màkk. mu ngi mel ni ah, leneen tamit njaaloo yàlla ne jaay si bopp li nga wax rëy na di. Ndiallo. Mm-hmm. non non non waxuma Ndiallo. jël alalam di ci liggéey. moom ko di ci yóbbu nit màkk nga ne dama ne la. Assane ah, Moussa yow est-ce que mu joo soxor. man dama ne la képp ku fekk lu yàlla xaraamal. Mm-hmm. loolu la nga war dem mooy boo ko fa dem waroo fay nekk. Mm-hmm. di ut ruq boo jaar ba ci am dara. bu la ko yàlla nattoo. nattu yàlla amul. ah xam lu am. topp ci bakkan loolu nattu nattu mooy feebar yàlla nattu la ngay jullit nga xëy feebar wala mu jox la alal ci loolu dagan nga xëy ñàkk loolu nattu la mm-hmm. wala ngay sëy yàlla nattu la mënoo am doom mm-hmm. loolu nattu la mm-hmm. waaye nekk ci dara nga xam ne lii lu xaraam la nga nekk ci ñu wax nga naan nattu yàlla la lu amul loolu dafay ñu doog li borom lax dari doon jàngale ne ku muntu ne ci bàkkaar yàlla la bàyyi nga dem tuubi ko bu fekkee tuubi woon nag lu nga toon naa ne wala yaqoolu xataa yaxdiya llaahu damay xar ba yàlla gindi ma ma doog a tegu ci yoon mu ne mu ngi mel ni képp ku wax loolu rek mu ne yow yaa ngi nekk ci màndaga taxaat yi te mu ne kii wax loolu ñettan ko yoon wal xislaani ak wattan ci basiri mooy gàcc àdduna di ko am ak àllaaxira te beneen bi danga dem ba yàlla nattu la sa xol dootu mën a dégg dégg da ngay gis nit ki wax nga xam ne li dëgg la nga am sa fulla sa fayda bañ ko te bañ ko bañ te koo ko fet foo gisee ku yàlla nee na ñaar da ko joxe musique diglu musique day hmm. a xamaat bëri na de. ba ci moom mi sax waaw ba ci que la nga yow da ngay pare balaa ngaa wax kon yaa ngi déglu musicien yaa ngi déglu ay waali yaa ngi déglu xam nga ñëpp te booy jël ci exemple ci euh, dama ko desee kii ba ñëwee ci laaj yàlla tere mi. boo ko laal doo am bës benn kan. waaw kon nañ ci génn ñu dem feneen. bisimilah. <laughs> yaa expliqué li nga bëgg a def da nga dem da nga dem ci benn laaya yàlla di wax musique dafa haram. Mm-hmm. am na benn wékk bu yéene bu haram bu daganee ñu ngi ciy xaw ma lan gis naa mucc si bi. ah yooyu arabe xam nga xaw ma lan. mais dafa am li ma jaaxal yëpp ngay déglu yow yëpp nga xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yëpp nga lañ ko doon gàttandoo taral badru alayna loolu ak yi ñu doon tëgg ay tambour li ngay def ni sharia da koy tere damay laaj bul tëkkalee tëkkale non non non non tëkkalewu ma damay laaj soo tuddee baatu musique non pourtant bëgg jël dawal pourtant pourtant dama ne loolu lan la ko teeroo lan la la xam nga dama ne muy bi ko doon teeroo taral badru alayna n'est-ce pas waaw kanaa xam di utiliser tambour loolu la loolu hmm. du musique lan la loolu tamagu tëgg la tamag fu mu bokk tamag go toog maanaam xam nga loolu jëmmi baat bi sax jëmmi li ñu tëgg. Mhm. pour misaal la ko tama laa mën a wax. mais tambour la rek. waaw mais ma. Mhm. yéen yàlla moom sallallahu alayhi wasallam. Mhm. yéen yàlla moom sallallahu lañ ko doon defal bokkut ak lii. xam nga tey jii. ñii guitare guitare. guitare dafa garaaw. xandeer dafa garaaw. tëgg weñ ñu ndaw yooyu gars yi di dajoo dëng dëng dëng dëng. xandeer bool yu bëri yi. ah ok dafa bëri ah batterie dafa garaaw. yooyu yëpp nag. ah da lay yóbbu foo mënta dem. yooyu yëpp nag bokkul ak leen ba ci mbongo mbongo. mbongo bongo bongo. Mm. taaxuraan. yow foo xamee. yëpp dafa dafa dafa xaraam ay marimba xam nga baa